gannaaw ndigalul xalifa général des mourides Serigne Mountakha siiru Mbacké ci aaya yi mu doon amal ci dëkk bu sell bii di Touba rawatina nag yére yu rafet yi ñuy sol jeekati kol yi nekkee ci Touba ne ñoom seen Bàmba mi ngi ciy yi ndigal gi moom ba mu ñëwee moom sant nañ si yàlla bu baax a baax ndax dañ see kontaan trop ndax ndigal li ba mu jugee ñëpp dañ koo jëfee wax dëgg fa yàlla am na changement bu njëkk bo ndax xale yi ñu ngi kol bu baax maire yi ñu ngi kol kon ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax te ñun ndigali ba mu jugee tamit yàlla dimbali nañu dañ ko jëfee tamit ñëpp. di jënd ci col yi nes gis rek fi ñu taxaw xaw ay nit di ñëw di jënd si ngir jëfe ndigal loolee beneen jaaykat bu ko soriwul dara moom itam di ñu xamal ne ñu ëpp ñuy ñëw di jënd si ci col yi. léegi am na changement baax baax ndax ñu bari fan yii passé yëpp ñu ngi gis ay ñuy ñëw ñu bi di jënd ci col ñoo xam ne bi dañ daa dañ a baax léegi léegi rek moo ci mujj ñaaru ñaan léegi ñoo jënd ko wax dëgg moom fi ñu toll am na changement baax baax par rapport ak léegi ndax xale jigéen ñi moom mu dëgg yàlla comme ndigal la moom dañ ko war a jafe rek waaw ñu bàyyi mees beeg xeesal beeg lépp daal ba ci góor ya waaye tam mbir yi taxu koo cher ndax lu waaye am am kolo ci kol yooyu sax soxna si di ci ñaax yu jigéen ñi ngir seen digganteeg seen borom. xanaa nu bàyyi ko rek fas yéene jënd kol muuru sellal sellal sa xol sellal sa jëf ñaanal seex mu tàqa mu yàgg fi loolu nag te ànd ak wér. bu dee nag ñi nga xam ne ñooy jaay mees yi ay sali yi ñoom nag nanguwuñu àddu ci kanamu caméra yi waaye ci suuf ñi ngi ñuy xamal ne li ëpp ci seeni bagage rawale nañu ko tey xaar nag ndigal seen bopp